yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf kërug Sénégal ga ca New York di la maison du Sénégal à New York dëkk fa wóorul dugg fa wóorul ndax fondation ba léppi tappale la ubbil observateur yéenekaay bi xëy ak ñun ci xëtamu njëkk ci dilëk mafia boobu am na ci anam ya ñoo sampee kërug Sénégal gogee ca New York journal bi ñu pàkk ba rek juróom benn milliard ak juróomi téeméeri million la ñu ko waxaale woon la ñu ne moom la ñu ca fay toll na ci fukki milliards ak ñett sa njuuj njaajeeg tappale yamul foofee ndax dem na ci ba jeex coowal njuuj njaajeeg tappale jeexul ci yëglekaay ji le xëy ñu xamal projet bu ñuy def ngir defalaat building administratif journal bi nañu coow lu rëy ma nga ca ci biir gouvernement bi polémique gouvernementale ndax lu toll ci juróom-ñetti fukki milliards la ñu bëgg a yëkkati defaraat ci building administratif am nañu yëkkati seen kàddu di tuumaal neexi tubaab Abdoul Mbaye premier ministre bu Sénégal ne yëf yi daf ko bëgg teg ci marché gere gere loolee Abdoul Mbaye weddi ko ba mu set wecc ñu ko ko dem di vérifier ab société boo xam ne Macky Sall ko moom ba ñu toppee yëf ya turu njiitu réew moo ca nekk Macky Sall mooy borom yéenekaay bi dañu ceeñe bokk ca direction des impôts kenn ca ba mu yëgee li liggéeykat yi def fa saasa la feebar wér dëggee tax ñu mën a xam ana lan moo tax mandat njiital assemblée nationale gi Idrissa Seck sàkkoon ñu jële ko ci benn at delloo ko ci juróomi at yamu nekkoon ana la tax antoogul direct info xëy ñu xamal Dieng mi jiite lang gi ëmb député Benno Bokk Yaakaar yi ne ñu ci Idrissa Seck ay pexeem ak i jéegoom du dara lu dul seet nu mu tasee Benno Bokk Yaakaar ñu fekkaat ko ci Le Quotidien moom Moustapha Diakhaté mu ne Sénégal dafa mel ne benn ministre rek moo fi nekk muy ministre de la justice téeméer ak ñaar fukk ak juróomeelu xewu Popenguine gi mi ngi suñu gannaaw démb la woon ak bërki démb yéenekaay yu bari ñu xëy ndool xëy ci dellu siwaat Le Soleil xëy xamal ne cardinal na benn nokk déggoo gi nga xam ne am na ci diine yi nekk ci réew bu Sénégal observateur ne ko ca ndaje moomee cardinal Théodore Adrien Sarr mi jiite jàngu bi ci réew mi sàkku na ci ndaw ñi ñu jël Mariama mu sell ma def ko royukaay yéenekaay bi nañu waaye la cee ñuul rek moo di palais présidentiel ba ca Popenguine xaar nañu Macky Sall ba toqi gisuñu ko palais présidentiel boobee ca Popenguine ak ñi fi jot a jaar doon njiiti réew secret ñu am ak palais boobe wal Fadjri xëy ca dellu si mu di Senghor di Abdou Diouf di Abdoulaye Wade ba ci ca nekk ak secret bi dox sa diggante ak palais présidentiel ba ca Popenguine Walf Fadjri xëy na ci dellu si waat Sud Quotidien nañu xew Popenguine gi yamul foofee rek ndax cardinal Théodore Adrien Sarr ba muy jiite mees ba di wax ba yegg ci mbirum góor jigéen yi nga xam ne ñoo ngi laam-laame ne dañu koo bëgg a daganal ci réew bu Sénégal ndax dagan na ci yeneen réew yi cardinal Théodore Adrien la mu xamle moo di loolee jàngu bi du ci mës a ànd ànd leen ak man ñu dem ci le populaire milliardaire bi di Bokar Samba Dièye jaaykatu ceeb bi manga siinam ba ca Grand Dakar moom la ay samba booy daj guddik samedi jàpp dimanche cambriolé ko jël fa lu la neex journal bi dañu lu jege fukki nit ak ñaar jàpp nañu leen ña nga police tey ji lañu leen di déféré ndax dañoo gis ne seen loxo ci càcc gi ca sàcc yooyee sàcc Bokar Samba Dieye populaire nañu doomi Bokar Samba Dieye ma nga ca ci journal bi lay des ba léegi ak Alaaji Ousseynou Diouf footballkatu Sénégal bi journal bi ñu naan Faayif dafa dem ca toilette yi maanaam wanag ya bëgg faa jaay reewa ndekk jikkoy woyu gars duma ko fa ba yàlla fóot ay sagaram waa observateur laaj Alaaji Ousseynou Diouf ndax loolee dëgg la mu ne leen du dëgg man duma ku ñuy songo ku ñuy dóor te ku dugg ci man dinga rëcc